Assalamualaikum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu njiitu kër gi mooy aaj bugaan di ko ñaanal di ñaanal jabatam ñu ngi nuyu aussi personnel bi nga xam ñoo bootu gannaaw di nuyu Sénégal yépp ñu ngi dellu di ñaanaat jàmm si réew mi yàlla dolli jàmm dolli ko si Gambie googu ñu xam moom lañ dendal euh, ñu ngi ñaan yàlla def ñi nga xam ne ñoo tëdd si lal yi hôpitaux yi yàlla yëkkati leen ñi caabi feeti ginnaaw aussi mu oyofal yenn bi ñoom ba mën leen a foofu ñu ngi ñaanal kilifa diine ak kilifa aada yi di yéene ñëpp jàmm di sàkk aussi ñaan si ñoom tey dañ ñëw si émission bu am solo nit ñi laajaat ko muy wàllu cholestérol cholestérol dafa bari ñu mu ñu mu sonal temps yi bari na ñoo xamante ni fi mu nekk nii ñu ngi am problème tension bu yéeg te boo seetee ba si biir cholestérol rek moo ko indi mais cholestérol boobu mooy lan cholestérol boo xoo boo ko déggee benn diw la bu jaune buy ànd ak deret ji daw jaxasoog deret ji daw te mu mën na indi ay jafe-jafe si fànn yi ma leen bëgg a wax ndax su baree si sa deret mën na dem ba fàtt siddi di mën na indi crise cardiaque muy arrêt cardiaque mën na indi ABC ndax mën na indi éclatement benn siddi benn vaisseau mën na indi ay paralysie wala crampe mën na indi néew doole si wàllu wàllu sëy aussi ndax gis ngeen ni awra sidit dafay jaar te sidit boobu deret dafay aw deret yi mën naa jax soog graisse kon nga xam ni li booy li muy indi am jafe-jafe bari na mu am si nag ñeenti type yu ñu leen bëgg a leeralal bu njëkk bi mooy le sol alimentaire mooy biy jógee si ñaan cortisol d'origine euh, animal si jugo xeetu lekk yi jëm si mala yi lu mel ni nen bi am na cortisol boobu lu mel ni yàpp am na ko kon yooyu moom la ñuy wax le cortisol alimentaire si lekk lay jóge mu am ñaareel cortisol ñu nga xam ne cortisol sanguin mooy bi nga xam ne boo demee hôpital moom la docteur bi mesuré te idéal bi mooy bëgguñu mu dépasser deux cent milligrammes mooy idéal bi fexe toujours di à moins de 200 mg. milligrammes su ko ëppee rek foog ñu xool ndax si HDL bi LDL bi la HDL bi mu am cholestérol bi si topp muy le cholestérol HDL muy le bon cholestérol muy cholestérol bi nga xam ne mooy nettoyer même say sidit di dundal vaisseau yi kon ñi yaakaar ni cholestérol baaxul amna na bu baax bi amna na bon bi bu baax bi mooy HDL. mu am beneen cholestérol aussi bu ñuy wax LDL muy boo xamante ni aussi moom dafay dafay yàq si dit mën nañ ni mooy seexu beneen bi muy HDL su baree sa deret rek mën na fat si dit mooy indi jafe-jafe ngay gis ni kon boobu dañ ko war di wàññi le maximum lu mu gën a tuuti mooy gën waaw moom daal bëgg nañ mu nekk en deçà mu gën a néew cent cinquante milli Euh, nen nag ñu koy yemale que boo gisee nen des fois ñuy wax ni waroo si jël lu bari tey benn nen bi boo ko jëlee am na deux cent soixante quinze milligrammes de cholestérol te yow dañ ne la si journée bi waroo dépasser trois cent sa consommation journalière te benn nen rek am nga deux cent soixante quinze kon boo lekkee ñaar nen si journée bi ëpp na kon loolu jar na jar na bàyyi xel kon muy loo xamante ni li la si mën a rek mooy xam nooy lekkee. xam lekk yi nga xam ne boo ko dee jël dina wàññi cholestérol boobu sa yaram bokk na si légumes yi ak fruits bari sa lekk lu mel ni carotte bokk na si légume bi ñu leen di njëkk a lu am solo la si cholestérol da koy raxas da koy nettoyé donc di ko jël lu bari surtout bu ñorul bi nag moo gën mën nga koy ràppe su ko dee booy lekk di ko boole ngay lekk soble bi baax na aussi boo ko dee jël lu bari mën na cholestérol mën na bañ a yëg

moom waxuma sax cholestérol bi muy bi muy bi muy nettoyé mais dafay dalal xel dafay apaiser sa esprit te dafa am sélénium aussi muy ferñeent bu am solo boo xamante ni bari na lu muy aar si nit muy sélénium boobu kon kii dafa am dafa am solo Persi bi aussi baax na boo ko dee jël lu bëri moom persi vraiment dafay dafay nettoyé cholestérol boobu wan bi donc baax na di utiliser lu bëri bu la neex mën nga ko dàggate ba mu nga defar ko sa boolu kii rek lekk ko noonu comme mën nga ko def infusion aussi di ko di ko naan pomme aussi bokk na si fruits yi nga xam ne mu la ñuy jëkk a recommandé moo pamplemousse ak euh, limon lu am solo aussi pour nettoyer sol boobu lii di buy aussi dara gënu ko gis buy bii tey jii boo jëlee dool nii rek nga baxal ko si lii sa ndox boole ko doom yi baxal denc ko diko nan par genn wal kaas bo ndeke bo anya bo ci kattan yalla da fay gaaw pour nettoyer cholestérol def na ni modou mod mo sank suba dama wax ni dafa am ben tuba bu ma bëggon bolal bu cholestérol yeek jarul sax mom la ko envoyer passage sank diko jarul déplacer wu na sur émission bo suivre jël recette yi rek tekkal ko tuba mu jël ko ci kattan yalla jarul muy wut garab fenn li mën nako mën nako dimbali warga wi aussi lu bax la day wacc cholestérol boo ko dee baxal dina am moom warga baax na mais xam ni nga koy togg rek ba nga xam ne xam nga gaa yi moom dañuy lakk warga ba nga xam ne daanaka kër yi rek la ñuy naan loolu si baaxul togg ko togg bu yem rek te li gën si warga sax boo koy togg fi ne boo ko togg ndox bu njëkk bi da nga koy tuur daal di reprendre sa ataay wala na bu oyof te du la la sonal donc yii nekk na loo xam boo ko dee jël yàlla mën na dimbali wàcc ko sol boobu ñëw si question yi xam moom la nit ñi indi tey ku njëkk ki daf ni moom dafay laaj koo xamante dafa jugee si paralysie dafa paralysé boo xam si li ko indi mooy AVC la amoon lu ñu koy recommandé ki nga xam dafa jugee si paralysie amoon AVC AVC si boo xam ne sax boo fa jugee même boo amul paralysie li ñu lay recommandé mooy nga wàññi d'abord xorom bi ngeen ni xorom na nga koy wàññi bu bëri sa togg boo ko mënee bàyyi sax moo gën éliminer ko sinon mu bañ a bëri wala boo koy ñam muy ñam mekk ba ci guddi nga éviter ko xorom da koy éviter. Euh, di lekk légume ak fruit lu bari bu ñu leen di mënee toggal sax benn supp à légume boo xam ne li ñu koy toggee mooy lan mooy concombre bi lu am solo la benn concombre ngay jël jël benn navet jël benn kaani salade jël xaaju chou pommé su ko defee jël gusu laaj boo déggee gus mooy doom mag bi nga xam moom doomi ndaw yi jël benn doomu soble bu dee jinjeer bu mag bi la benn bi doy na bu dee yu ndaw yi la nga jël si ñett su ko defee nga fajal ko ba mu sew boo ko toggee ba mu ñor nga jël ñett doomu limon nga fajal ko si def sa tuuti poobar su ko defee yàlla mën na dimbal lool boo ko dee jël bu ko defee boo ko toggee nag da koy bàyyi mu baax da koy daggate ba mu sew nga xam da nga koy bàyyi mu baax ñaar fukki minutes bu commencé ba soo paree nga tëj ko noonu ba mu sedd nga naan ndox bi lekk légume boo ko def chaque guddi si kàttanu yàlla da nga dem ba say cër delluwaat fa mu newoon soxla woon naan ren soxla woon su sungu soxla naan benn médicament kon ñu jógee si tension mu daane leen ba ñu génn si nañuy jël supp à légume boobu su ko defee yàlla mën na leen ba dañ bëggoon ñu amaat ko su dee dañ koy boole ay séance de massage ñu boole ko massage bu soobee yàlla yàlla mën na leen ñu amaat liñ bëgg bi kii def ni comment utiliser le cyberbooking cyberbooking nag ni ñu koy jëlee yomb na nii ngay def sa doo tëj nii ngay def ba mu fees su ko defee nga baxal ko si litre ndox bu baxee juróomi minute du yàgg cinq minutes nga segg ko di ko jël par kaasu attaaya boo ndékkee boo añee boo si kàttanu yàlla li nga si bëgg di ko am. ñetteelu question bi kii daf ni je crois que j'ai la colopathie lu siy pexe colopathie def naa ñëwoon nañ si émission muy. faral di def biir buy jooy di xurxuri ndax li koy waral ñu ba dañ foog ne butit bu gudd la mais butit mooy perte motricité am su ko defee nag day mel day bàyyi butit nag bu bàyyee day mel doo ngërëm day yokk su ko defee gaz yi day tayal butit day tayal gaz yi di dajaloo li si saafara bari na mais liñ koy tegtal lu si baax mooy njër bi ak lem boo amul jabet daal soo jëlee njër nga def ko lu toll nii ñett yu toll nii nga dëbb ko moom moo ko def si litre ndox def ko saa yoo xelee genn wàll kaas Euh, nu mu tëddee jël ko du lem soo rek ko naan si kàttanu yàlla te ngay defar infusion persique di ko naan yàlla mën na dimbali à long terme nga dem ba am jàmm bërul complètement yi di nga am jàmm ba dootoo def foo toll biir biir riir ñu leen tàggu leen jox naan seen émission organ jërëjëf